ba furtu jàpp ni wax jooju daal waxawul donc mu nekk mi mi nga xamante ne tax na mu defaa beneen sortie ni ki démb je pense ci njàpp la ko defee yëkkati fa kàddu gu nga xamante ni euh, ñu ko ci imam voilà mu nekk mbir mi nga xamante ni daal euh, jur na coow jamono juñ toll ni euh, imam Dramé ak réaction bi nga xamante ni am na ko pour yow lan moo ko waxal mais est-ce que xam nga ni tey jii mere nit parce que tontu ma wala déglu man de ñi ma si jotoon a xam ñu am yenn responsabilité yi ku ci bind message tey nga trois jours tontu ma duma la mere jaara xam nga lu tax ma xam loolu ñun tolluwuñu fenn amuñu dara mais da ngay gis parfois boo amee benn journée bu chargé rek yàlla may la nga def nga bokk ci benn séminaire wala lu mel def benn atelier mu jeex ngeen dem def añ bi bu ngeen paree añ enchaîné waat ak beneen atelier ngoon gi ñëwaat ngeen nekk ci yeneen ak yeneen yéen ngi ci yeneen rencontre rek yoon da gis ne rek ki la message woon huit heures wala neuf heures. doxatoon mën na xeebu mi rek am naa ci cas yu bari. <laughs> fii war a def leneen demaat gàlle am activité te ñun amuñu benn poste bi amuñu responsabilité. imagine toi ministre bi nga xamante ne tey jii bu génnee def rencontre ak yi mi ngi toog ñu naan la ñu indi la euh, ñi nga xam ne ñoo demandé ñëpp audience nga rencontré rencontré rencontré sa téléphone boo xoolee heure ngay xool def ni gis am nga 15 messages yu daanu nga def ni appel bi sonné nga nga defaat ni toog daal di waxtaan waxtaan pare génn. yaa ngi dugg sa oto boo duggee sa oto président woonal wala nga décroché. Mm-hmm. wax wax wax wax waxtaan ngeen 15 minutes wala 30 minutes mu raccroché yegg si nga nga jëm. balaa ngaa xool sa téléphone boo métu minuit une bu tëdd desee ngay def ni di défilé di xool te doo mën a tontu ñëpp waaye léegi loolu tey jii yow su fekkente ni mënoo comprendre kooku problème dafay am. et ñoom ay ministres yu nga xamante ni aussi ñu bëgg terrain lañ. ay homme de terrain lañu ay homme de terrain lañu donc boo comprendre fa problème dafay est xam nga ne ñoom seeni propre frère. Mm-hmm. man am naa ci information bu wér propre frère ki nga xamante ne moo de day toog mu ne toog may toog lu ëpp weer du ma dégg président du ma déggante ak moom propre frère. seen propre frère toog weer du ma déggante ak moom. Ah, la falu na fi presque euh, ñaata mois gisul papam gisul gisul papam donc kon nga nga nga comprendre que ne yow ndegam ki nga bokkal daay ak bàyyi mooy toog ne man de wax dëgg yàlla président bi ñuy wax ne man damay toog ab diiru weer du ma déggante ak moom te koo xamante ne daawoo leen toog trois jours te message amul wala wala déggante amul kon pour man il faut que ñëpp ñu am compréhension par rapport ak ñi nga xam ne ñoom lañ dénk. li olof di wax nag ñaan bu nangoo sonal borom moo mm-hmm. am mm-hmm. ñaan bu nangoo rek sonal borom ñoom dañ doon ñaan yàlla ñu ñàkk jot lu ñu daan wax Ousmane Sonko daa am jot chaque jour mi ngi live chaque jour mi ngi live mais tey mu dem ba léegi daanaka waa këram ak famille wax ñëpp dañuy am jafe-jafe pour teg ko bët chaque fois yaa ngi ci yaa ngi rencontré yaa ngi ci terrain bi yaa ngi def ni yaa ngi ni yaa ngi ci dossier yi mais état du lu ndaw mais nag ñoom tamit nañuy organiser wu bay fexe di tontu ñi nga xamante ni mënut a ñàkk ak yenn message yi wala tamit ñu délégué ko wut système bu ñuy defee boo xamante dina am ku leen dimbali ci yenn réponses yi parce que boo defee black out total day créer ay frustration mm-hmm. loolu tamit ñoom dama leen di wax message tamit ñu góor góorgóoru ci def effort gannaaw bu ma expliqué li nga xamante ne mooy waral tey ji ñuy yéex a tontu waaye nag du tee boo demee ba minuit jot wala une jot xam naa ci ku mel noonu nee na bu ñëwee bureau bu duggee toog c'est un secrétaire d'État nee na bu duggee bureau su ma ñëwee toog 9h euh, ba 11h maa ci téléphone bi. c'est-à-dire dafa dafa organiser dafa am benn heure mu ne heure woon damay ñëw toog ma nekk si téléphone bi message yi ma am. c'est pas facile la. ma def nii xool ñi nga xamante ni bindoon nañ ma message mënu ma leen a tontu ma tontu ñi ma mën a rappeler ma rappeler leen ñenn ñi ma ma bàyyi message ñi ma mën a tontu ñu ma tontu leen après ñeneen ñi ma ma ma bàyyi noonu loolu organisation la te il faut que tamit ñu góorgóorlu ci parce que tamit am na ñoo xamante ne amuñu compréhension bi comme ce que te buñ ko deful mën na problème maintenant est-ce que ñu il faut ñu xam ne aussi réalité pouvoir dafa am voilà ñoom aussi ñuy fexe ñoom ñi nga xam ñoo bokk Pastef ñu fexe di tàggat seen bopp euh, ñu ci kaw ko wàcc ci suuf di leen expliquer réalité pouvoir bu ko defee aussi déggante ñàkk bañ a déggoo bañ di am ci seen diggante loolu mooy communication warul dagg mhm. yow même bu fekkente ne gis nga nit ki munoo tontu mais am na ñoo xamante ne même boo munul tontu waaye waaye boo demee ba sa ëllëg sa wala suba su nga tontu leen parce que seen dayo ak seen taxawaay tamit ëpp na ñu lay message di la relance di la relance nga bañ leen a faale rafetul mm-hmm. bu dee man nag mu ñàkk solo mu xeebu bi mën ngaa toog un mois tontu wala sax bu ma tontu mais am na koo xamante ne quand même yéen a daan liggéeyloo ci parti bi am nga nomination amugul nomination bu lay def si ñu amaan amaana li mu lay doy farata la lu am solo la mm-hmm. mais décroché ko boo ko bu ko fàtte mu mel ni da nga ko ignoré bàyyi ko mu yàgg jëmale suba non loolu baaxul loolu moom il faut ñu corriger ko par rapport ak ñenn ñi nga xamante ne seen i camarades de parti lañ am nañ benn taxawaay bi am na loo xamante ne jaar nañ fa il faut ñu def ci attention na pour ma revenir ci ki nga xamante ne moo di imam euh, Dramé mhm. je pense que c'était une erreur mu wax loolu parce que tey jii ko ci woo doo ko jot mais bu leen jigéen ñi lañ woo mu décroché leen mhm. c'est trop dire parce que ministre bu ci nekk ku ci nekk kilifa nga te ku ci nekk tamit euh, yàlla am na nu mu la bindee ku ci nekk tamit am nga yoo xam ne bëggoo ñu koy tudd jëmale ko ci yow jigéen ñoo jigéen ñi lay décroché wala yu ni ne yu ni mel nag yu ni mel nag beneen débat la boo xamante ne pour man waru foo naa yegg mhm. warul woon a glissé ba dugg foofu maintenant euh, détails yooyu mën na yàq diggante mën na am yu mu jur yoo xamante ne ñoom ñi ngi doog a ñëw ci nguur gi euh, defaguñu un an donc bu ñu commencé xiiroo nii war mu am benn benn différence divergence ñoom ni baaxul parce que actuellement dañoo soxla dañoo soxla la conjugaison de toutes les forces su ko defee ñu mën a atteindre seen objectif dem fi ñu war a dem mais su ñu xiiroo xiiro du ma décroché puis c'est des détails pour man mm-hmm. waaw du ma décroché mu def damay teelu rencontre dina am ndaje dina ma ñëw toog nga ñëw toog ma ne saa waay indi génne la sama téléphone indi la sama historique ne la xoolal lii ak lii war na la et puis ñuy éviter dem ci plateau yi di ŋàññante ci seen biir non non non loolu baaxul dafa leen di néewal doole may ñi nga xamante ni ñu ngi taxaw di xool fay ci ñoom. pour ñu dugg et puis ce n'est même pas le moment. waay ce n'est même pas le moment moment bi moment wu euh, se serrer les coudes mm-hmm. moment bi moment wu joxante loxo la moment wu jàppante la moment wu jàppalante la pour réew mi jëm mm-hmm. kanam. Mm-hmm. donc su fekkente ni yéen ñi war a jàppalante yéen ñi war a tegante loxo yéenay ŋàññante problème dafay am donc loolu moo tax man damay def en damay nekk en phase. ak li nga xamante ne moo di euh, communiqué bi nga xamante ne moo dab def na ko jëmale ci imam euh, Dramé maanaam ne ko mu am plus de retenue waaye tamit euh, mu moytu yenn propos yi ak yenn dérapage yi nga xamante ni mi ngi koy. muy dérapé dafa bari de. gis nañ ci dialogue national position bi mu amoon moom bu gars yi awee nii dangay ngay gis. Mhm. d'habitude nii lay aw de <laughs> imam. waaw mais loolu loolu moo tax ma ne damay ànd ak Modap. et puis euh, xam nga bu yàlla defee da nga am benn tempérament bu tàng nii. Mhm. da nga war di moytu di communiquer tout le temps. waaw pour man man su ma ko doon conseil dama naan nay raaral ay sorteem. te bu meree war moom lu nga ko metti dem ci télé. Mhm. xam nga jaaro am na ñoo xam ne dañu am lu leen métti trop ñu jaay leen doole ci parti ñu néewal leen doole xam nga journaliste daf si bëri ñu seytaane dañ lay woo alo yow dégg naa démb nga doon wax doo ñëw ma invité la. Mm-hmm. pour boo ñëwee toog mu ubbi la naan la waaye kii la wax waaye parti bi dañ laa xeeb waroon ngaa am dara nga waaw man bu ñu ma joxul nangam ak. Mm. moo tax ñu ne boo meree bul dem plateau. boo demee plateau rek mën nga wax lu ëpp loo xamante ne tey jii dinañ la xeeb wala nga wax loo xamante ne waxuwul. moo tax la plupart du temps da nga gis ñooñu bu ñu leen jéemee invité mbaa nga jéem leen link dañ naan non bàyyil noonu nga ne ko nuñu mu ne non xam naa su ma waxee damay def tojaange bàyyil noonu parce que li ma xam ak sama xol dafa fees fi ñu toll nii bàyyi ma rek ma toog ñii mhm. bàyyi leen rek man dinaa daje ak ñoom wala dinaa gis diw ma waxu moom pour man c'est ce plus responsable mais jaar du toog mer jaay nañ ko doole mu jékki-jékki woo Moustapha ne ko suba dinaa ñëw sa plateau loolu mhm. baaxul su ma demee demee tuutal sama bopp wala su ma demee dinaa wax loo xam ne dañ may xeeb moo tax loolu ñëpp ñoo ko war a am mhm. te dafay am lu muy nduru président Bassirou Diomaye Faye bi mu invité ñi nga xamante ne moo di jeune reporter wax na ko nee na personne personne ne peut me ma chanter <laughs> yaar noonu la ko waxee rek personne personne ne mhm. chanter maanaam chantage kenn munu kenn kenn kenn kenn mënu ko kenn kenn mënu koo def Serigne Cheikh wax na ko tamit nee na gor du chantage nee na chantage moom mën nga ma dugg ci waaye boo duggee ci chantage rek mën ma génn ci euh, waxuma dafa def chantage waaye dama ne képp ku nekk ci parti nañuy moytu ñi nekk ci parti bi am idée ni kii kat waa daf daf daf daf ma bëgg a chanté loo te loolu du doon loo xamante ne lu lu lu rafet lay doon ñoom ñi ngi doog a ñëw ci nguur gi installé guñu bu baax bagage sax tekkee guñ ko ñenn ñi amaguñ place ci kër gi ñenn ñu toogaguñu kon nañu def ndànk rek. may est-ce que tamit euh, seen euh, kii yooyu noonu du du benn signe bi ñuy def rek. wax na ni eh, da ngeen may kii baa ma yëngal. waaw <laughs> mais am am mais xam nga loo loolu lay jur et c'est ce qui est déplorable. ñu bëri fi ñu ni nii interprétation yi lañ ci am. Hmm. maanaam dafay yëngatu pour ñu jox ko dara dafay yëngatu pour lii or mën na bañ a doon sax loolu. Hmm. mais malheureusement sortie bi mu def dafa am maladroite euh, ba nga xamante ne. ku nekk yaa ngi koy interpréter selon sa gis-gis et loolu nag mooy li nga xamante ne mu ci regrettable moo tax ma jàpp ne rek erreur la et j'invite tamit euh, waa Modab ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk Pastef kilifa yi ñu dox ci tànku jàmm woo ko waxtaan ak moom mu limiter ay sorteem parce que nag euh, quoi qu'on puisse koo xamante ne la euh, sonn na trop pour ñu yëg ci pouvoir bi. Mm-hmm. daj na si lu nekk comme ni mu ko waxee. daj na si lu nekk wax dëgg yàlla kon tey ji bu ñu ñëwee ba yegg. ay jafe-jafe am du ma ànd ak ñi xam dañuy taxaw naan waaw na dem fële nañ ko génnee nañ def nii non non non àdduna du noonu. Mm-hmm. parce que tey jii na fu ñu doon tollu kat benn sortie bu ko daan def ñëpp a koy xaar ñëpp a partagé affiche toog di ko seetaan. kon tey ji bu demee ba àndul ak ñoom gis-gis wala wuree woo wute woon nañ ci wàllum gis-gis bu ko kenn xarab bu ko kenn mere bu ko kenn wax loo war tax bu ko kenn manqué de respect mm-hmm. parce que il mérite du respect euh, nu koy waxatee mu yéene la maillot pour le projet dugal na ci xaalisam dañ na ci lu nekk pour le projet kon bu erreur am wala manquement am wala jafe-jafe am wala dérapage am nga taxaw bëgg koo wax loo xamante ne waaw waroo koo wax wala nañu waxtaan ak moom et que moom aussi mu am plus de retenue voilà mu am plus de retenue après ensuite ñu continuer yeggali euh, bu ko président wóolool deen mu dénk ko ko Euh, bu amee beneen xalaat ci moom aussi mu def ko eh, man loolu yaakaar naa. moom nga euh, man euh, réew mi doo xaar nomination rek pour nga mën a mm-hmm. liggéeyee sa ku ci nekk ak wàll wa nga nekk nga ci mën a yëngu ba askan bi gis ci seen bopp donc pour man ay partager ay gâteau ak yeneen yu ni mel sax mu waxuma que ni nag loolu moo tax muy yëglu wala loolu moo tax peut-être mu am réaction bu ni mel mais dama jàpp ni bu fekkee sa réew rek moo la ñëw te moom ngay xeexal voilà ci wàll wa nga yëngu war nga ko ci mën a amal ba askan bi yëpp gis ci seen bopp. on espère noonu lay demee sax te moom euh, li ma xamagum wala li ma gisagum nii yaakaaruma mbirum nomination la mais peut-être dafa sentir ne dafa ñu jot fal ñoo xamante ne peut-être dañoo tëj seen i buntu. barricade wu kenn mëntu leen gis fenn. mu am lu ko metti loolu metti ko waa loolu loolu loolu metti ko parce que koo xamante ne la yàgg na yàgg na bu leen woowee jot leen à la minute qui suit ñu rappelé ko. Mm-hmm. donc nga ñu dem ba falu jotoo leen mu génn. Euh, def benn tir de pour gars yi yëngatu xam ne am na loo xam ne xew na fi. waaw waa loolu la réalité pouvoir moo am. waaw réalité pouvoir am na waaye tamit waaye tamit jaara ñoom ñoom ñu nekk ñoom ñu nekk ci pouvoir tamit dañuy def effort. waaw réalité pouvoir am na man comprendre naa ko de mais ñëpp mënuñu am compréhension boobu ma am. Mhm. léegi ñoom tamit dañuy def effort. oui def effort. Mhm. parce que xam nga am am na ci ñoom ci xam ñoo xamante ne tamit boo leen messager lu mu yéex yéex dañ lay tontu. lu mu yéex yéex dañ lay tontu doo leen message sa appel manqué bu ñu ko lu mu yéex yéex dinañ la message ne la gis naa ngi jégalu nangam ak nangam mhm. loolu mooy courtoisie d'accord waaye nekk nit ki yàlla njëkk la jox poste wala nga njëkk koo féete jékki-jékki eh, ber sa yoonu bopp kenn jotatu la kenn gisatu la ñenn ñi sax dañoo dem ba am ay xarit yu bees ak yooyu yooyu baaxul. Mm-hmm. parce que nguur day jeex tamit nag ah. nguur ah, day jeex ah, te yàggul sax à tout moment suba rek mën nga xëy. Euh, euh, bale bale bale ba bale mu bale la mu bale la donc loolu moom moo war nañ ci di ci bàyyi xel. Mm-hmm. voilà di sàmm kóllëre bi. loo nekk ci kaw nekk ci kaw am nga ñoo àndaloon doon xeex donc di leen sóoraale ñi ne ci suuf tamit di xam ni ñii yàlla moo leen teg ci ci kaw te dañu jug ñun ñëpp liggéeyal askan bi comprendre te ku ci nekk rek di comprendre moroomam ku ci nekk aussi di def ay effort pour que euh, ñuy gisante seen bopp ci ku ci nekk voilà victime d'une série de démission de la euh, démaquillisation bi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ci biir APR jamono ji toll yi ginnaaw élection yi nag gis nañ APR jamono ji Moustapha bés bi yàlla sàkk da ngay gis ni mi ngi gën a wàcc voilà ay démission ñi ci di ci parti bi voilà mu nekk mbir mi nga